asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 2 juillet 2020 ñëw ak yéen ci yëglekaay yi sunu lamb la ñuy xëy doore ko tey mu mel ne ki nag yëglekaay ba tey fa mu xëy ñëw ci ñeenti mbër yi nga xam ne daal fi mu nekk nii moom boo bëggee dégg-dégg daa mel ni seenu combat daal wala seeni combat Gaston moom taxawal na ko muy Balla Gaye numéro 2 mu way Gris Bordeaux mu Fass Eumeu Sène mu Pikine Bombardier mu Mbour mu mel ni kii nag ñoom ñeent daal jàppal yëglekaay bi ne alxemes ji nu jëm daal ci ñu fas yeneen nag def ndaje moo xam ne mu rëy rëy lay doon ko ko fas yéene organiser nag du kenn ku dul ka nga xam ne moo di Gaston Mbengue mel ni kii nag jamono jooja moom Khalifa Dia ma nga xam ne mooy manageru Gris Bordeaux ci yëglekaay bi di sunu làmb ci wax ju mu séq ak Boubacar Niang daal mu ngay xam ne ne daal seen objectif wala giri bëgg-bëgg benn la am mooy gii di Balla Gaye numéro 2 mu ko boppam bi yoon nga xam ne moo di combat revanche bi nga xam ne moom lañ fas yéenee bëree mu mel ni kii nag Gaston Mbengue moom yëglikaay bi ne na am na ay soog yoo xam ne daal yu explosif la taxawal yoo xam ne ay revanche yu doy doy waar moom la taxaw moom la taxawal mel ni kii nag yëglikaay bi xam nañu ne daal Balla Gaye numéro 2 moom yemul sax ca Gris Bordeaux ndax encaissé waat na beneen avance maanaam daal ñaari avance jël na ko te yeen ya nag jàppal wala boog ba ca des mooy bu jógee ci li nga xam ne moom la dugg maanaam moo xam booy Niang la wala Eumeu Sène mu amaat ci kenn bëre ak moom Eumeu seen tamit mel ni ki jamono jooju moom tamit daa mel ni moom itam ñaari avance jël na ko bu jógee ci Bombardier maanaam Balla gay wala keneen koo xam ne dana jàmmaarloo ak moom bëree yëglikaay bee xëy tey ñëw wax nu lu mel ni ki noonu mel ni ki nag booy ñang mañ doon wax moom digganteem ak tafaatin yëglikaay bi di sunu làmb daal xamal nañu ne day soo bëggee dégg-dégg booy ñang moom daa mel ni digganteem ak tafaatin mu ngay gën a daal leer maanaam daal seenu combat daa mel ni fi mu nekk nii ah est-ce que du moo fi sës yëglikaay baa xëy tey ñëw wax nu ko mu mel ni ki nag man Diop numéro 2 wala Mansour Diop mook mu mag ma nga xam ne moo dëkk ca Pikine daal moom la mu xëy xamle moom nag yëglekaay bi na xaritu benn bakkan la bu dégool ma nga xam ne mooy way juru Boy Niang mel ni kii moom man su Diop nag la nga xam ne moom lay leeral daal nee na Boy Niang du bëre ak Balla Gaye lu dul ci juróom-ñett fukki millions maanaam 80 millions moom bees ko tegul ci taabal ji moom jàpp na ne bëre moom du am deesu ko sax xalaat ba kii di Boy Niang di jàmmarloo ak Balla gay naan day bëre Pape Diagne Seras moom ca Pikine la dëkk moom itam ab manager laaj nañ ko ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Gris Bordeaux moom jàpp na ne combat bii nga xam ne moom la ñu nar a jëm muy revanche bi daa jàpp ne lu gaa yi gisoon ca bu njëkk ba bu ko lu ko raw bu ñeboo xaar ko ci combat bi nga xam ne ca lañ jëm ndax des na gis lu gën a metti la amoon bu njëkk Pape Diagne Seras moo wax wax ju mel noonu ci yëglikaay bi nga xam ne ni moom moo di sunu làmb ba tey bu nu continuer dañuy dem record wax ci boobu combat ba tey rek ndax nag ñu ngi ñooy xamal foofa daal ca gëstoob Abu Nduur kani daal combat ba soo bëggee dégg-dëgg négociation yi moom tar moom mu nekk nii Gueye numéro 2 loolu Abou Ndour moo xëy tey ñëw andil ñu ko dañu fay jóge waat delluwaat fa nga xam ne moo di sunu làmb wala ñu baagante ci ñaari yëglikaay yi moo xam sunu làmb la moo xam fi nga xam ne nii moo di record la bu dee suñu làmb moom xamal nañu ne day Baba Diaw décroché na nag diggante double moteur ak Quench daal combat de feu yëglikaay baa xëy wax nu ko mu mel ne ki record tamit xamal nañu lu mel ni ki noonu xamal nañu ne daal combat boobu moom jàppal duel de espoir daal la ko tuddee nee na Baba nag fiselo na booba combat beneen combat boo xam ne tamit combat bu tara tar la nar a doon wala combat bu ay technicien mel ni ki foofu moom waa arena vox wala waa vox arena ñoo fa jaar muy diggante garga numéro 2 ak ka nga xam ne nii moom moo di maama lamine bu lansar loolu yëglikaay bii di record moo xëy tey ñëw dinu ko wax keneen koo xam ne nii moom ba tey mu ngi ci kay bii di record di Moussa Dioum di fa wax nag la mu bëgg moom ne na ñii la bëgg a ne na daal pare na pour jën kayre wala Quench wala Modou Anta loolu dajal mbooloo moo xëy di ko wax record ñëw na ci moom ak palmarès am ak huit victoire ak li nga xam ne moo di six défaites yoo xam ne am na ko ci làmb ji mu mel na ki nag jàppal record itam day ñëwal nañu ci acte arène ba nga xam ne da koy def wala boog l'acte de l'arène yëglikaay bu xëy na tey ñëw andil ñu ko mu mel na ki nag Gaston Mbengue moom mu nga fay leeral de wala boog mu ngay gën a daal wane la mu bëgg ak itam la nga xam ne jàpp na ne moom daal dina ca dox wax ca bu ko amee moo xam bu ko amul itam waaye dana ca dox muy diggante Tapha Tine mu mel ni ki daal woon ca RDV la ko waxee Gaston daal jàpp na ne diggante Tapha Tine ak Reug Reug moom bàyyi moom defagu ko ko da koy dox ba lu mu ca jëlee moo xam daal moo koy xam leneen loo xam ne nii moom aw tiis la daal ci làmb ji muy xale bu ñuy wax booyloo nekk écrit tafes gi moom nag moo génn àddina ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko te xare ko aljana di ko jaal waa écrit tafes gi yëpp rawatina ñoom tigoo waaye tamit di ko jaal fan si club Leewtoo ndax daan naa ko fa dégg mu bokkoon ci ñoo xam ne daan nañ safoo leen niy def di ko jaal ñoom si se ngaari ngarmeew ma ca Brésil mel ni ki daal kon booyloo yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana mook bépp doomu aadama bu fi bàyyeekoo moo ko waa Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen euh, si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar te nag moom amul jokkalante micro am nga sa micro yor naa sama micro coronavirus oblige. <laughs> waaw maa ngi lay fay Ndeye Coumba di nuyu internet yi ñuy suivre ci Leewtoo TV yëpp di leen ñaanal jàmm. di ko saxu ci ñoom di leen balax bu baax a baax waa tey moom yor nga micro ma yor micro waa c'est la ah. lu lu looy def ci àddina rek bul yàqamti rek parce que lu su heure ba jotee dina ñëw quoi waaw. loolu ne ki nga xam ne mooy Gaston Mbengue dana euh, organiser ñaari super ndaje diggante Balla Gaye ak Gris Bordeaux Eumeu Sène Bombardier ñaari combat revanche yu nag ki nga xam ne mooy Donking moom moo ko taxawal pour marquer marqué son retour Babacar. waaw muy ay super ndaje la ko yëglikaay bi tuddee ah muy Gris Bordeaux Balla Gaye Eumeu Sène Bombardier ah li am solo nag mooy que ni xaw may super ndaje xaw may face à face lay doon xaw may signature contrat waaye xam naa daal ñoom ñeent ñooñu moom fépp fu ñu daje fu ne super ndaje lay doon moom wala sax mu romb ko parce ay mbër lañ ñi nga xam ne tey defe naa Euh, kenn moo ci dégg roi des arènes muy Gris Bordeaux te mu ngi bëre ak ñoom kon defe naa ñoom ñëpp ku ci ne taxawaayu roi des arènes dégg na roi des arènes waaw dama ne kenn ci déggul roi quoi ah ok yaa ngi dégg <laughs> kon yaakaar naa <laughs> waaw xam naa ñàkk a ndékki bi la xam naa daal Gaston moom dañ koy féliciter rek parce que mm. tamit nit moom da ngay am objectif bi mu ñëwee am na objectif am te objectif am mu ngi ci taxaw ba tey di dëggal boppam kon daal li ñu koy ñaanal di ko ñaanal promoteur yëpp mooy ku ci nekk rek la nga yaakaar ba jël sa xaas dugal ko sa yàlla na la yàlla dimbali ba boo cay génn nga génn ci ak alhamdulillahi rabbil alamin amateur yi tamit am ci satisfaction totale mm-hmm. tamit mi ngi ñu xamal ki nga xam ne mooy Khalifa Dia di manager Gris Bordeaux moom daal nee na Gris Bordeaux amul leen lu dul benn objectif mooy daan ki nga xam ni moom mooy Balla Gaye Gaston nga nag euh, nee ñu tamit may na ñaari revanche explosive comme ni ñu ko waxee rek si ndorteelu euh, revue de l'arène bi euh, nee ñu Balla Gaye tamit dina dina jël ñaari avance

di mujje ak ay bëtam la ca des mooy revanche yooyu ñuy waxat tamit waa ay revanche yu explosif la mm. parce lu la waay mën a wax euh, lamb mën na taxaw nga ne lamb ja neexut waaye bu ñu gënee dem ba affaire yi mm. ba bëre rek des bu keroog nga xam ne mbër yi ku ci ne ndam nga bëgg te ku ci ne sa gox ngay défendre mm. waaw euh, jeunab aussi mi ngi xam ne ginnaaw nag bi nga xamee combat am ak ki nga xam ne mooy Balla Gaye jotul taxaw boo ñaa nag nee ñu soo moytuwul Tapha waaw xam naa daal fi mu nekk nii moom digganteem ak Balla coow li bëri woon na ci dina taxaw ak du taxaw ba yàlla def na tey ñu ne Balla jël na Gris Bordeaux ah kon defe naa itam moom Boy Niang objectif am nekkul benn mbër rek moo tax muy ci lamb ji di bëre parce que boobu ba tey mu ngi bëre nit ay preuve am te bëréwul ak Balla Gaye numéro 2 mm. kon defe yaakaar naa du Balla Gaye numéro 2 kese tey mooy nekk ci lamb ne moom la war a fi visé ne day bëre ak moom te yaakaar naa ne loolu newul ci xelam kon defe naa tey digganteem ak Tapha Tine da koo dàqul diggante Boy Niang Tapha Tine lamb pire la te ku ko tëgg ah da nga am combat jànq bu doy doy waar kon defe naa itam foofu lamb la digganteem ak Tapha beneen adversaire yeneen adversaire tamit bëri fi yoo xam ne war na mën a bëri ak ñoom moom la dëgër de lu des toujours nag si Boy Niang ki nga xam ne mooy Mansour Diop nekkoon fi mbër ba tekki ngeen moom moom daal lu mu gis daal nee na Boy Niang 80 millions lay bëre wala boog du du bëre te nag nu fàttali ne booy euh, Mansour Diop conseiller la ki nga xam ne si Boy Niang 2. loolu moom mooy li nga xam ne nii kooku kilifaam la di way juram bokk ci stafam defe naa ne itam loolu su ko waxee am na droit wax ko jàpp na ne seen mbër lii la war a mën bëre ak Balla Gaye numéro 2 muy 80 millions suñ ko ko fayul du bëre loolu moom defe naa ku ci que nag ñoom ñoo yor seen mbër ñoo xam la seen mbër di jaar tax ñu taxaw ne loolu suñu leen ko joxul duñ bëre seen ay droit yu baax yu yu yu yu kii la daal la waaw suñu ñëwee nag si sunu lamb record ak fi nga xam ne mooy Leewtoo point net hmm. ki nga xam ne mooy Baba Diaw Baba Diaw Leewtoo sunu Baba Diaw taxawal nag combat bu neex diggante Quench ak double moteur Baba Babacar mi combat bu neex ndax Quench moom xam nañu jóge na si combat nul moom ak jën kayre daaw ki nga xam ne mooy dëggu moteur moom moment si victoire moom la jógee Babacar waaw mu mel ni ki ñoom Baba Diaw moom dañ koy féliciter rek ak waa production yëpp ñoom am di Moustapha ak Abba ak staff bi ko wër ak ku ni Abdoulaye Ndiaye ñi ñi koy jàppale ñëpp mu nekk koo xam ne tamit mën nañu wax ci moom parce que jeune la bu nga xam ne ñun xam nañ ko avant mu nekk promoteur mu nekk amateur daan sonn xam na bu baax baax li muy def te am Gueye ak ya ca aju tey ñu ne déet ne waaye nga indi Diène Kairé ak Quench wala boog Quench ak double moteur <laughs> <laughs> waaw bopp daa des ci sama bopp bi ndey kumba combat ba reportage baa yàggoon <laughs> mu loolaa tax mun topp ma ba tey waaye bi yoon double moteur la ñu indil ak ki nga xam ne mooy Quench bu Euh, Bargny muy làmb joo xam ne defe naa promoteur yi ko bëggoon bari na ñi amateur yi ko bëggoon bokk bari kon defe naa Baba Diaw félicitation di ko ñaanal yàlla rek li nga xam ne nii moom la yaakaar ba tax mu sonn ci ba combat boobu taxaw na moom kii nga xam ne mooy abondu nee na daal bi mu jokkoo ko waa kër ñoom euh, waa kër ñoom Gris Bordeaux ki si mel ni euh, Khalifa Dia hmm. moom nee na combat bu ñu ngi négociation ba tey lu mooy mooy nag lu xaw a doy waar Babacar waaw doy na waar de mais comme li ma li ma li li li ci am solo daal mooy Gaston Mbengue moom ku ne dégg na ko mu wax dégg nañ wax ji ci journaux yi yaa ngi dégg abu tamit la muy def liggéeyam la te defe naa ne lu mu xam-xam la kon tamit la muy bind am na fu mu ko teg mu nekk loo xam ne daal xam naa ne li ci li ci jara jàpp na ci bu fekkente ne nag négociation yi tar na combat boobu moom lu normal waaw parce que lu lu négociation yi war a tar la mm. parce que nekkul lu yomb quoi Gris Bordeaux ak Balla Gaye Fass la ak Guédiawaye war warata mën a yomb mm-hmm. waaw li ñëw nag Babacar xam naa coronavirus bi moo tax euh, poche yu nit ñëpp rawatina mbër yi ne ñu Moussa Dioum moom mi ngi yëglu nee na moom pare naa pare na daal pour bëre ki nga xam ne mooy Diène Kaïré Quench ak Modou Anta xanaa mu jéem a xool Diène Kaïré ak Modou Anta rek ndax Quench moom am na adversaire day fi nekk nii moom lekk na avance moom ndax père Max Mbargane encaissé na dem gis naa ko mu téb enveloppe am kon defe naa ne waaw waa père ah dinaa ko xam naa ne encaissé na enveloppe am démb jàpp boppam père borom jaalu muus jinax du ko yër maa ngi koy ziar père Max waaw sa goro gën laa muus moom mi nga xam jikko doom ba jox la ko maa mais Moussa Dioum moom tamit defe naa ne mbër la mu mag a mag a moo xam ne nii tey am na lu mu wane ci làmb defe naa tey bu